Modou Anta maa ngi lay nuyu nga nekk reporter euh, tey képp koo xamante ni di ñu ngi jaale ki nga xamante ne mooy suñu papa Boy Bambara bokk nga euh, ñi nga xamante ni bi ma yëgee tiis bi woo naa la laaj la yan témoignage nga ñu mën a defal ci aji dem gi. waa jili maa lay nuyu di la siyaar bu baax a baax di nuyu suñu bas mi nga àndal di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ne comme dañuy dellu ci aaya ba comme yàlla dee la njëkk a bind comme dund xalaxal ba pare teg ci ne kullu nafsin saa'iqatul mawti bakkan bu ñam dund nag di nga ñam dee keroog Père Balla la woon keroog Papa Yade la woon keroog keneen ak keneen la woon tey Boy Bambara la man nag ñoo dëkk. parce que ku xam Boy Bambara xam ne ñaar tali la dëkk te ku ma xam xam ne benn laa dëkk man mu nekkan paa boo xam ne wax dëgg yàlla xam nga des fois day am nit ñoo xam ne yàlla da leen di nattu si lenn muy seen métier moom làmb moo nekkoon métier mais boo ko xamee ba ci biir da nga naan kii yorul ji koy mbër. parce que mbër ci biir géew xam nga ne leneen la mais booy bambara boo ko fekkee ci biir këram doo ci gis mbër danga naan kii wali wuy laqatu la mais dafa am fu mu jaar. mais nag xëy na lii la yàlla na ma ci moom wax dëgg yàlla mu nekkoon koo xamante bi nii ñu bëri ñàkk nañ quoi mais surtout waa école de lutte booy bambara gis nga fi sangu góor fit gis nga fi Boutane Tafa booy bambara Saloum 2 ñëpp ñëw nañ dib ca suba ba tey ñu ngi fi. mu wan ne la amoon mais ak temps bu gàtt bee yooyu moo tax ba tey ñuy doog a denc mais ma lay seedeel ne la ku baax dem na ku yëg nit dem na ku bokkoon ci xali tariixa Cheikh Ahmad Tidiane dem na. moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy jaale di ko jaale tariixa yëpp bàyyi ñu kenn wax dëgg yàlla booy bambara moom axlu làmb daal ñàkk nañ ñàkk nañ mais jiili man leen rek moo ma metti ñi nga xam xeexal nañ làmb fu nekk booy bambara xam a ñaata drapeau la andi réew mi bëri na pourtant loolu noonu booy bambara waroon na chaque fin de mois muy jot sa salaire ñoom ancien gloire yëpp mais jii li ñi dañ leen di seetaan ci métit di leen seetaan ci coono ba ñu xëy génn àdduna nga gis fi kon na nag koo xam ne gës nga koo gis rek wala danga ko koo bëgg interview muy te danga leen di gis fii mu jaral leen ñu yëkkati seen xaalis di ko ci def pourtant ba muy dund buñ ko ci defoon mu gën a neex ëttu làmb ji bi tabaski bi desee 4 jours ñu ñi ñoo defoon social bi andil ko ko 600000 lan dajale booy bambara mbay géey Baye Balla kase bu dëkk Mbour Jibi Ama Sil Balde Junior ñu seddale leen ko te groupe WhatsApp lan ci WhatsApp rek lañ xamante pourtant groupe yi ci réew mi ak yi ci bitim réew bu ñu defan ni moom paa yëpp faju nañ lii moo raw coronavirus. booy bambare feebar mbay géey feebar dubales feebar nga mën leen a faj fajoo leen moo raw coronavirus. walaay lancim lu raw coronavirus mi ngi ci réew mi gars yi fajuñu ko mais dañuy bàyyi ba bakkan rot kenn ku nekk di ñëw di jaay sax seytaane kenn ku nekk di ñëw di jaay nii laa toll. Sénégal foofu la toll nit ñi jàppaleetu nit te yàlla tax nan dem xool ñi nekk ci hôpital yi amuñu luñ fajoo ñu faj leen. nan dem xool ñi nga xamante ni dañoo xeexal Sénégal fu nekk représenté réew mi fu nekk ba retraité toog seen kër feebar jànkoonteeg métit yu tar seen i mbokk daw ba sonn seen famille daw ba sonn mënuñu ci dara. te am ñu yor seen xaalis am ñu yor seen compte banque man leen jàppale jàppale wu ñu leen lii moo raw coronavirus ji li jaajëf